Mhm. lan la ñuy def maajaal ci mbedd mi bu guddee ñu dem naa ne ko sàngara maa ñu dem jëlee ko yàmba. Mhm, mhm. ñooñu bay fal la. déedéet déedéet. ñooñu kenn yow mii sa bopp yow bëgg nga ñu nekk fal déedéet déedéet xalaatu ma. dama leen di bàyyi ñuy nekk ci dëkk bi di yàq turu turu euh, deru Sèye la. di yàq di deru yoonu Mouride. déedéet déedéet. bu ma toogee ak nit ñi nag la may wax ak ñoom ñu enregistré ko dugal ko man nëbbu ma ko parce que bu ma doon enregistré bu ma doon toog di wax nit ñi lu nëbbu mm. eh, bu ma kenn filmé mm. man li may def dama koy def mu leer nañ xam naa si bu baax xam naa yi ñu jàpp di ko wëla wële dama bëgg ñu xam ne Cheikh Ibrahima du moroomu ku yàlla bind Seydou bi muy ñëw ci Serigne Touba la ko sama borom defal moo hmm. tax muy topp leeru Serigne Touba ba fekk ko fa nekk kooku du moroom hmm. la nekk ci moom nag du lu ñuy doon du lu ñuy kii hmm. la sama borom def ca moom ak njabootam danañ ko doon ku ca ku ca ku ku ca mat a àgg suñ borom dina ko teg say loxo ñu bëgg nekk fi di sonal nit ñu pour la ñun tamit dañoo nekk fi ñun tamit dañoo bokk Seydou dañuy nekk dañuy nangu ko saay-saay bu jóg rek ak say ndomba sa sol say sagan ne bàyyi fa la nekk ci lu la neex nekk ci dëkk bi di mandeka saaga nit ñi rek foofu laa la foofu laa waxee de. Mbacke Baal bu nekk di wax lu leen ne kooku man. ak fi nga waxee parce que man li ma leen wax nee leen doomu aadama man bu bu amee ba pare te man dugguma wax ci ko day mel ni man naafiq la ndax te naa la ay yoon yoon yoon nekk naa ak yow yoon yoon yoon yoon gisuma lu romb su ma gisoon ci yow loo xam si ne da ngay siglacé pas dama la fay romb parce gis naa euh, màggal gi ñaata sët sët sëb la ñoo ñoo la ñoo la si